réparé. réparé. réparé bu Guédiawaye waaw instant bi ñoo ma doon wax ay. combat maag moom ak Amel Lagos. Amel Lagos tamit moom moo doon moom danañ ma wax seen. combat waaw mais Amel Lagos est-ce que perte yow dina la di frein la yor di freiner booy. gis nga naa la benn affaire rek gis nga fii nii. bu ma fi naree nekk. di bëre wala di am lu may ragal wala lu may sóoraale ma teg sama ngeen ma sànni dem xooli leneen. làmb dama ko bëgg te ah, su maanaam làmb daf ma bëgg moo tax xoolal bu jaaree jaree ñu bàyyi ko bakkan bi waaw mais bu jaree tamit nga xool fi koy teg say tànk yow Ameth Lac gis nga Ameth Lac Rose ni mu fi mu jaarale billaay wallaay taalaay jaarale ma gis nga fi mu jaarale Liss Ndiago gis nga fi mu jaarale Petit Lo eh? yow ku leen avance Ameth Lac Rose mu ngi yow Mbacké Faye du seen morom ñoom ñëpp te dama ko téye tënk Mbacké beneen niveau la Mbacké barki Serigne Bamba uh-huh. du seen morom ñoom ñëpp te dama ko téye tar ko te ba may bëre moom ñu bëre ma ne kii bu la jàppee da lay dal non moom moo nekkoon favori wax dëgg yàlla moom moo nekkoon favori bu ñu wax ne dëgg te da nga bëre moom parcelle daanaka mool moom rek moo jaaxal Modou Lo mun naa ne Rock Énergie moom rek moo jaaxal Modou Lo yàlla xam na ne jëriñ la loolu billaay wallaay moom rek moo jaaxal Modou Lo te dama ko jàpp te dama ko daan ba mu taxawee rek jàpp ne moom mooy favori nga dem bëre mu daan mais bool bool bi day freiné waate déggoo li ma la wax booy kii freiné la yoon kooku nag kuy yéeg mu freiné la wàcce waat kon de dinañ ko gànn tiroir maanaam. dinañ ko gànnaatiir frein bi. Mhm. bàyyi na de dañuy dem fee ñu gànnaatiir ko defaraat ko. te xam ne frein bi moom ah. saa yi mooy loolu noonu. ba ci daal avance am na loolu na waaw. instant bi amagul combat. man bi amaguma combat bi làmb rek moo ma ñor ku ma kuñ ma jox ma bëri moom saa yi. ba ci daal nga tudd fi am na ne bawal bawal. saa yi. l'espoir du bawal amul lenn lu ñuy sóoraale si làmb wala lu ñuy calculer. kuñ ma jox damay lekk avancé a rajaxe ko fol ko mu dem wala réparé maa daje nañu esaat. Ah, benn booy naan kaan waaw mooy loolu noonu gayaan saa yi doo jël combat bi affaire yow man man dañ ma joxe ma ne ko sëñ bi yow maa ngi yow bu ñu jàkkaarloo muy géew di lenn bu ñu jàkkaarloo ma wàccee la nga naan man la. maama ah loolu ngay wax waa Coro jëpp mooy loolu nañu ma ne ko nañu tëgg combat bi te combat wu noonu laay xaar. moom ngay xaar billaay wallaay ma ñaata mbër la yi. loolu dërëm. ah kay dërëm la kay loolu dara. dërëm la kay dafa mën a bëree. saa yi ay mbër di daan ay jël yu rëy jël bu mu daan ñu ne moo gën rafet bi ñu def. xam nga top 5 ngay wax mais maa ngi moom bu ñu bëree ma du ma yóbbu ko top 14. maa ngi moom réparé yow laay waxal yow mbër. ah ko yóbbu top 5. war ki Serigne Touba Mbacke bu ma ko jàppee maa ngi moom waxuma top 5 sax mais top 14 laa. xam nga ñu def man nekkuma fi nga may yóbbante da ngay wax ak moom wax la ak moom. réparé yow mooy loolu. wax la ak moom yow boo lekkee avance bi dama lay coob. barki Serigne Touba Mbacke xam nga bu baax ñu lay wax ni boîte vocale grand yof lekkal avance boo ko lekkee rek nga xam ne lépp dëgg la. léegi lim nga fi ñaari mbër. Hmm. bokk nañ ci boy yi gën a tëj ci say morom. waaw réparé lim nga ko fi. lim nga fi amee la route. Hmm. est que am na keneen ku nekk ci liste bi. waaw instant bii man maa maanaam la proposé. ñoom ñaar dañ la proposé te pare woo pour fente. non saa yi kuñ ma jox damay man dama daan bëre combat hmm. arène. billaay wallaay taalaay xoolal sama adversaire ba ma commencé gis sama adversaire léegi la. mais làmb dama daan bëre. dem ba làmb ji dama daan dem ba si làmb ji. doo xam gis ku may bëre. jour làmb ji ngay ba dama dem damay dem si combat bi nii ñu war ma ne ma kee ngay bëre ma ne leen kii bu ñu bëree maa ngi moom du yomb. te noonu la fay demee combat yi muy bëree ba ma commencé gis sama sama adversaire combat maag euh, kii loolu la sax. Euh, Mbacké Faye. Mhm. lay soog gis sama adversaire. mais soog a xam kan lay soog a xam ku may bëre lii baax moom si état waaye mooy loolu noonu. kon xam nga ne loolu noonu kuy ragal wala ku. non non non ragal moom ragalu bu ñu waxantee ragal moom ragalu mais aussi. Euh, tudd nga fi Réparé. Hmm. Euh, Ameth Labouye nga xam nga promoteur yi des fois mën nañ jóg démarché benn combat am fu mu tàggee dèjà gis nga sa combat ak Pape Socé la dal. danañ ba démarché combat ba desul dara. Pape Socé euh, euh, résisté wu. léegi boo limee ñaari adversaire moom mën nga dugal keneen keneen ak keneen bu ko defee. maanaam affaire dafay gën a yaatu. bu promoteur bi ma jox ma bëri man ndaw laa rek. ndaw bi nga xam bu kuñ la jox nga bëri parce que am na niveau boo toll. dëgg am na niveau boo toll tey bu ñu la bëggoon jox booy bu toll ci benn combat doo ko jël. waaw kon. Eh, mafia bi dañuy bañ kon nañ ma jox parcelle. parcelle kan Arafat dañ ma ko jox. Arafat ma. waaw Arafat ma. Arafat bi ma ko wàccee ko. booy ah, da nga bëgg ma jox la numéro Arafat ngeen gaanoo. ca mu ma léegi léegi léegi léegi ma woo ko gaanoo. non xoolal may ma tuuti may ma tuuti. Arafat boo bëggee mën naa la jox numéro ngeen nekk ay gaan dinaa ko ne kii sama boole sama pour boole mun ngeen nekk ay gaan mun ay conseil et tout et tout. Mm-hmm. boo ko tuddee pour lan la yow da ngaa ñëw ma jël avance Arafat booy. damay job avance bi. amul dara lu muy ko fi tegoon nii ku tegoon avance à la base nga jël ko. barki Serigne Touba bi ma fayul dërëm ma rek moom barki alxuraan amul lu may suuraale wala may ragal si. la xam ne rafet. waaw sa père la de. dañ daan dem làmb may làqu di bëre. Mhm. ñu ñëw xoolal billaay walaay talaay gars yi ne ma sa père nee bul bëre. Mhm. man laa àbb sër bëre barke arxuraan kay yow bëre rek mu nekk man bëre man bëre moo nekk si man kese kese billaay wallaay talaay waaw mais mais mais booy booy fas bi bàyyi ko. waaw booy fas ko kooku non kooku mi ngi nii feneen. xam nga parce que booy il est très dangereux techniquement il est très fort. man physiquement il est très fort mystiquement il est très fort. gis nga naa la benn affaire man dara jaaxaru ma si làmb ndax dama. dama dama def si dama def si affaire bëri li nga xam ne. Hmm. maanaam mooy loolu ndax lu mu dee man dama jàngali Gréco-romain. li ah da nga def Gréco-romain dama ko def parce que comprendre nga. am lu may champion yu bëri fekk ñoom ñoom fa bàyyi nañ ma fa. Mhm. barke alxuraanu karim mhm. kon instant bii foo dem fay yàgg. dama fa bëri kon instant bi am na dara li may li nga xam ne maanaam mooy loolu noonu. billaay wallaay. waaw nee naa la booy faas bi. Hmm. bàyyi ko fi man maa la conseillé loolu. Hmm.

mbër yu mag yi fi nekk sax ku ma si joxoon sa avance dama lay lekk waxuma nag arafas kon bu ma joxee avance am ma lay lekk. ah ku dul arafas bi nga avance bi ama kaar ku dul arafas sax barki alxuraan bi ma joxe avance am dama lekk. saa yow mbër yow arafas. yow yàgg yàgg yàgg maa ngi nañ koy. dégg naa am nga combat nag yàgg. moom Tafa Mbër yooyu uh-huh. ñaar ku si daan soxla naa la. ban vocal mu ngi lay xaar. waaw ñoom ñaar du si daan. léegi liste bi dugal nga ci euh, aussi Tapha Mbeur. waaw loolu noonu. yow atal nga biiru Tapha Mbeur. waaw Tapha Mbeur du dërëm. ok day day ñoddi. Ah, day xàññi du dërëm ok Tapha Mbeur sept combats sept victoire la affilée wala muy daan. saa du dërëm muy daan teemas ñoo ñoo yóbbuwoon teemas. Ah, voilà kon daan na sa bopp rek teemas. waaye dafa waaxu rek dafa waaxu mais ah, munu ko. dafa waaxu est-ce que comprendre ak ak ni mu fi jàpp dóor ñu daan. waaw mooy loolu loolu dërëm. sept victoire mooy ku def sept combats sept victoire nga ne ma du dërëm. waaw yow saa yi xàññi rek billaay walaay day xaañi barki Serigne Bamba day xaañi. est-ce xam nga ne bu la déggee di nga am problème nga dafa am nga naan xanimaan la. maa moom fu ñu dajee si mbedd sax bu ko nee sëñ eh, awal nii day aw noonu day dem. boîte vocale ku mu ku mu dajal amul benn mbër bi nga xam ne maanaam dafay dafay dafay yeb wala ba ci daal alxuraan gis ngeen ne stade bi ma demee mhm. nga xam ne deret sama deret bii nii ragal nekk si. bi Arafat la ma ñëw lekk sa avance boîte vocale moom lay xaar. BV mu ngi ñëw xale la. non non la c'est clair. waaw mais mbër mi euh, benn instant yaa ngi grand yoo xam. Ah? waaw maa ngi grand bi grand question bu ma lay bëri nag yow bokkoo ci ah. dëgg la waaw. Grand Yoff kan fi dàq bëri. waaw ah, Grand Yoff. waaw ah, mbër bu fi dàq bëri kan la. mais mun naa dama la ne bokkoo ci. booy man te connais su ma la doon kan moo fi dàq bëri nga ne ma yow. waaw man man maa dàq bëri Grand Yoff. mais bu weesoo man yow bokkoo ci. waaw bu weesoo man yow yaa may jox kan nga jàpp ne moo fi dàq bëri. bu weesoo man. waaw ah. ku bëri Grand waaw am nañ fa nag ay champion yi nga xam ne tamit mooy loolu noonu. sama question dafa leer. sa réponse kan moo fi dàq bëri. bu weesoo bu wee bu kii. yow bokkoo ma fi dàq bëri. <laughs> état ko bàyyi leen ko mu tontu. mais mais bàyyi leen ko mu tontu. mais état bii nii mooy loolu noonu. bu ma nee bul dicté bul dicté père <laughs> taxal ma la du ma ne sax. graaf kii moo mën a dàq bëri ak kii graaf ñëpp ay sama question loolu la sama question mooy kan moo fi dàq bëri toog mu ngi avancé waaw ñëpp mën a bëri champion lañ pour man naa a ñaata at maa fi dugg xam naa ne fii ñëpp mën a bëri waaw xam moo fi toogoon di lim ay ndaanaan la laaj yow waaw kan nga jàpp ne moo fi dàq bëri. non si dàq bëri moom. Ah. bu weesoo kii tamit gars yëpp dañuy bëri. moom mooy saa bii nii seqal ko bëri kenn ma leen waa tamit. Ah, waa léegi waa léegi waa bàyyi rek. ah da ngay fenn kese gannaaw ay champion la. coow ji bu maa laa jàppandu da ngay da la ne bul toog. non la nga coow ji euh, ah. yi wërngal këpp kan moo yi. lamb yi wërngal këpp